faddu demal ba ci soxna ummi mbooloo mi maa ngi ñaan ñi taxaw nan toog rek ba lii noppi yéen ñi ci buntu rek ñëpp la wax bi rek ngir sëñ Tuubaa toog leen rek ba ma wax li may wax soxna ummi Mbàkke yàlla na fi yàgg di sëñ Fallu Xulle mii nëgën sii daaw lu jóge Séeju di màggal si màggalu sëñ Fallu bi di ñëw ba ci yoon wi ñii ñuy wax ay police wala gendarmerie dogalee oto ba mu dugg ban dogalee oto ba ñu jiiñ ko ne ko danga ngaa yor lu ñuy aaye tëj ko ci lu mat juróom-ñetti weer kaso waaye nag ci biir kaso ba la ca doy dafa bind ñaari kaamil alxuraan loolu Sëñ Tuubaa képp kon biir kaso mu bind ci ñaari kaamil alxuraan loolu moom leneen la. kaamil yaa mu jébbaloo nga gis ko waaw lii lii kenn waru koo seere ku du doomi sëñ Fallu mu tudd sëñ Fallu sax doomi sëñ Fallu toog nii di dem di yëgu ko moom du am kaamil yi biir kaso la ko bindee te wax nañ ko dañ koo jàpp ne ko li la doon jiiñ ak li la doon wax dara amu ci mu ne leen du ma dinaa fi liggéeyal yàlla ba bind fi ñaari kaamil su ko génn lànkale de bañ a génn ba liggéey ba bind li mat nga xam ne lañ ko wax dara amu ci Mbàkke ñaanaluñu ko maam balaa ñaan sax ku fi teew ngir jëmmi sëñ Tuubaa nañ ko jox addiyee sëñ Tuubaa alxuraan moom sëñ Fall mi bind eh, eh, kaamil yi ca kaso ba nañ ko jox addiyee sëñ Tuubaa ba mu ne doy na nañ ñëw juróom-ñetti fa juróom-ñetti at juróom-ñetti weer la am ca nañ ko dajale juróom-ñetti junni jox ngir jëmmi sëñ Tuubaa waaw na am juróom-ñetti junni rek amiin Mbacke. amiin. jërëjëf. bismillahi rahmaani rahim. wa in xaaxabtum fa xaaxiboo bi misli ma xooxibtum bihi wala in sabartum la huwa xayrun lisaabirin wasbir wa ma sabruka illa billahi wala tahsan alayhim wala takku fi dayxin mimma yamkurun inna allaha maha lasina taqaw wa lasina hum muhsinun wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi waljooxi wa nafsin min alamwaali wal anfusi wasamaraati wa basiri saabiriin wala nabluwannakum xata naxlama almujahidina minkum wasaabirina wa nabluwa aqbaarakum alif laam miim ahasiba naasu an yutrakoo an yaqulu amana wahum la yuftanuun wala xad fatana lasina min qablihim fala yaxlamana allahu lasina saddaqoo wala yaxlamana alkaasibiin asalaamualeykum mbooloo mi liggéey bii nag dafa doon liggéey bu sëriñ Touba doon liggéeyloo yàlla suñ boroom dogal ma doon kañu tànn ngir mu war koo liggéey maa ngi ciy sant Serigne Touba bu baax sëriñ Touba moom gi ma moom moom alxuraan saa su nekk ay muhjisaatam day feeñ ci ak njabootam di feeñ ci ay taalibeem awrastukal kitaaba ba àdduna sosoo ba léegi kenn mësu koo wax ku dul Serigne Touba malaktukal kitaaba kenn mësu koo wax ku dul Serigne Touba. laqantukal kitaaba kenn mësu koo wax ku dul sëriñ Touba su kaamil bi tàmbali soo demee ba ca ulaayika alaa hudan min rabbihim wa ulaayika humul muflihuna moo tax sëriñ Touba wax ca wakkaanaa xam ne xuloobu jumlati lasiina aflaxu li yatawajjahan wa rabbil muslihu kon ëllëg yow képp koo xamante ne da ngay taxe rek day fekk ci mbooloom sëriñ Touba ngay bokk ba yàlla indee nattu bi ñu jël ma dugal ma ca béréb ba ma ne sama baay nañ ma bàyyee ak alxuraan ak sëriñ tuubaa te indil ma paketu kayit ak daa ak xalima bu subaa li ñu may tuumaal bu dee dëgg la su dee mas naa koo teg bët wala ma mas koo xo gis wala ma mas koo laal sawara yàlla naa fa jiitu te li Serigne Touba di séddale yàlla bu ma bu ma ci am su dul dëgg nag yàlla naa fi génn ci génn gu gaaw ñu tée ma fa juróom-ñetti weer ak fukki fan ñeent ma bind fa ñaari kaamil alxuraan ak ay xasida xasida yaa ngi foofu ñaareelu kaamil bi bis bi mu paree ci lañ ma bàyyee ne ma sëriñ fàllu jëlal say bagage te ñibbi li la yoon di toppe dara amu ci jëlal say bagage nga ñibbi nga xam ne toog naa ci mbedd mi lu mat ñaari waxtu di xaar oto bu jógee Dakar ngir jël si ma ñuy santaat sëriñ tubaa bu baax a baax ndax bis bi ñaareel bi kaamil bi jeexee ca lañ ma bàyyi ma ñibbi ci samay bopp te it njabatu jabatug sëriñ Touba gi ma jot a dajeel muy sëriñ am samu sëriñ Soy bu alaaji sëriñ Tàkko moom sëriñ Fàllu ba ci Cheikh Amadou ak Serigne Cheikh moom sëñ Abdoul Khadir ak Cheikh Mamadou Basir moom Serigne Fallou Serigne Abdoul Khafour moom Serigne Mbacke Assou ak mboolem njabootu sëñ Touba gi ñëpp nee nañ ma Serigne Touba la ko doon defloo. alhamdulilahi rabbil alamin mu doon yiw woo xamante ne itam képp koo xamante ne gis nga ko maa ngi ñaan suñu borom musal la ci sawara defal la tawfeex ak xéewal yu baree bari Serigne Bayti Sarr mi léppam day alquran. te ki ma dalal baa doonoon wëllëreem moom mii ca daara sëriñ maam la ne woon daan jàngale ba yàlla indil ko fii mu door a ñëw fii bu sëriñ maam doon dund ca daara ja yóbbu kaamil yi comme sëriñ maam dundul moom sëriñ Bayti Sarr moo fi nekk ñi ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool kon liggéey boobu war ma koo indi fenn fu dul fii ndax léppam day alxuraan noo ngi sant yàlla di jéggal mboolem koo xamante ne itam ma ma ma maanaam ka nga xamante ne moo indi tuuma jéggal nañ ko ngir jëm yàlla ndax bu fa duggul woon loolee du am ñaari kaamil yi nag delloo naa ko Serigne Touba moom mi wax ne kitaabun bihi narju minallaahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra minal karbi di siyaar mboolem dong yi nga xamante ni ñooy dong yi nekkoon ci daara ji di wax ne lu ngeen mën ci lu baax rek na ngeen koy def ci daara ji ndax wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayrur raziqin nañ leen gën a góorgóorlu bu baax a baax te sëriñ béyti fii sëriñ béyti mi ñu def ko comme ni ñu def suñuy sëriñ def ko ñu def comme suñuy waajur lépp lu ñu bëgg danañu jàppandi sëriñ Fallou a am ku moom ne ko Mbàkke man de ab baykat laa maa ngi dëkk ci dëkk yii waaye mbaam ma may bayee dafa dee ma bëggoon rek am mbaam laa doon sàkku mu ma bayee suñ faaw ne ko toogal waaw ñu defaral la ndekki soo ndekkee ba pare ñu jox la mbaam mi nga nga yeewe ko ba mu ndekkee ba noppi suñ faaw woo bëkk néeg bi ne ko kii kat ci dëkk yi la dëkk ab baykat la waaye mbaamam ma mi ma mi bayee dafa loru maanaam li lijjantil ko mbaam mi ci kër gi mu yóbbu ko bëkk néeg ba nag di def ay pexe ngir mbaam mi bañ a dem daal di wër néeg bi ñaari yoon ñëw sëñ Fall ne ko mbaam ma de daa fori sëñ Fall ne ko fa góor yu jox ko kon yeewi góor yu jox ko mu dem taxaw ci buntu ba daal ne ah fa sunaar góor wi dem dem dem moom loolu moom ëpp naa def mi dem moom moo gën fa sunaar góor wi di waraat néeg bi ñaari yoon ñëw ne ko mbaam ma de damaa defoon daa fori lekk mi ngi ci ginnaaw bi mu ne ko booleel ñaar yëpp jox ko kooku mooy Cheikh Mouhamadoul Fadal maa ngi ñaan ci barkeb alquran mboolem ñi fi teew ñëpp suñ borom faj seeni aajo liggéey bii liggéey bu ñu doon liggéeyal Serigne Touba rek la Serigne Touba moom moom alquran wax naa la sëriñ Touba waxoon muy xafawtu xanil ahda yi turan li wacci man nafaawum li xayri sarmadan lastu at fanwu yàlla nañu yàlla defal jàmm ñun ñëpp lépp def naa ko àddi Serigne Touba képp ku fi teew képp ku ko gis yàlla na nga tàj tàggoog ak ñàkk yàlla na nga sax ci ay xéewal yàlla na suñu borom defal sa lépp barke alquranu karim maa ngi siyaar ñëpp ñu ñaanal sëriñ bayti mu yàgg fi lool barkeb sëriñ Touba maa ngi jéggulu ñëpp nag wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi sant bu baax a baax ci loolu fi dox ci diggante bi xam ne liggéey bu nangu moom la moom lañ moom lañ doon seer moom lañ doon suñu boroom doon wan fii rek liggéey bu nangu ndax bind ñaari kaamil ci kaso moom bari bari wut a dégg bari wut a gis ñaari kaamil alxuraan kaamil bu nekk juróom benn fukki isib la loolu loolu liggéey la bu rëy rëy rëy rëy xam naa daa mm, jotaay betta sax mu dagg ci lu bari waaye ñun bi mu nekkee ci biir lim ñu ci nettali daw na yaram lool lool lool ci xam ne suñ Tuubaa moo ko jiitu woon foofee tey it moo ko doon liggéeyloo te it foofee kër googee mu demoon it du kër gu jomb kenn kenn kenn kenn kër gam demoon du kër gu jomb kenn waaye comme nii mu def nii mu nii mu fa demee rek képp képp ku fa dugg rek la la dugal nay doon loo xam ne nattu lay doon nattu ndax yonente yeeg euh, wali yeeg ñu baax yeeg ñëpp rek ku ci nekk kër googu mas nga faa dugg waaye ba nattu ba jeexee rek suñ borom dala faa génne ndax yuusufa mii nga xam ne lu bare bari ñi ngi koy tudd ci alxuraan ba bañ ko sax buutal ko saar saaru boppam suñ borom nattu woon na ko ci ab kaso yuusufa suñ borom nattu woon na ko ci ab kaso gis nga ba yàlla ju jubloo jeexal kaso ba da ko da koo génne da ko génne ci génnin wu rafet setal ko ca tuuma jam jañ ko doon tuumale tuumaale kon nag ku dem ba mbokk ci njabootu sëriñ bi euh, natt boobu dal la ñu dugal la foofe it wax dëgg yàlla loolu du du loolu du gàcca kon ñu dénkaat mbooloo mi ñu lu baax ci téere bi te xam ne euh, ñi nga xam ne jubluwuñ lu baax daal toujours maa ngi koy dénk mbooloo mi ñi ngi ci pexey jullit ñi bàyyi alxuraanul karim toujours ñi ngi ci ndax alxuraanul karim moo koy wax ci suuratu ba ñi nga xam ne dañuy dañoo wedd yàlla fii ñu toll nii dañoo jël seen alal di ko dépassé ci yoonu yàlla ngir lan ngir nit ñi dëddu yoonu yàlla waaye alxuraan nee na dañuy dépassé ba sonn seen dépassé googee du leen jural lu dul ak pertang ak pertang inna allazina kafaru yunfiquuna amwaalahum li yasuddu an sabilillahi fa sa yunfiquunaha thumma takunu alayhim xasra thumma yuxlabuuna walladina kafaru nag ilaa jahannama yuxsharun waaye ñi weddi yàlla moom ëllëg bu leen yàlla suñu di dekkal sawara rek la leen di dekkal waliyaasu billaahi yàlla nañu fa yàlla suñu borom musal kon daal ñu góorgóorluwaat ci daara ji mbokk yi fi ñu xam ne bis bii ñu taxawal bis la bu am solo ñu gën ko fonk bu baax a baax te xam ne ki ñëw ak ki ñëwut rek ñoo ci yem am na ñoo ñëwut te amoon nañ tuyaabay amoon nañu yéene yi bëgg a teew amoon nañ yéene yi bëgg a teew waaye nag képp koo xam ne amoo gàllankooru mën a ñëw te ñëwoo it danga xam ne ñëwoon ci daara ji moo gën ndax da jokk bokk danga jokk kóllëre da delloo it alxuraan jukkalam te alxuraan moo ne matale leen kóllëre ja bu ngeen xasee fas kóllëre wa awfu bil ahdi innal ahda kaana mas'uula nekk ab sëb sëriñ daara mu di la jàngal di la yar lu mat ay ati at moo xam nga mokkal alxuraan moo xam mokkaloo alxuraan su borom dogal mu nga nekk fa ba waxtu ya nga fa war a jógee nga jóge ko fa dellu nekk ci àdduna di liggéey ngir àdduna kooku boo amee boo amut benn bis ba ñuy jàpp di ko dellu di ko delloo njukkal ca daara ja war nga caa delloo war nga fa loo man ci sa doole loo man ci sa alal loo man ci sa xam-xam war naa delloowaat ca daara ji waaye nag yittey jamono ji yittey àdduna yu bari yi soxlay léegi yi tax na ba bis yi jaanaka ñi koy woote ñun xam nañ ci dara dañ ciy néeg doole lool di ci sonn benn sonn boo xam ne am na ci ñooñ dañ leen di woo di leen woo woogu métte métte métti ba mel ni sax yow woo gi yow miy woote dala jural intérêt te jurul la benn intérêt ñii ko sos ak ñii nekk ci bopp bi muy donga daara yii nga xam ne léegi ay mukallaf lañ ak ña ñëwut ñëpp ñoo ci war a yem ku ci nekk da ca war a jàpp def ci fukki loxoom ak juróom bis bi ba ko bay béti wootee wootewut ñii bàyyi ñii ku jaaroon ci daara ji ca dégg woote bi te yëpp ko jor sax ngay xaar sa tur war ngaa delloo alxuraan jukkal delloo alxuraan jukkal nag dara weesu ko ko daara ja nga jaaroon nga dellu fa daara ja nga jaaroon ndax boo boo jël sa ñaq delloo ko fa it yaa ngi jël saw ñaq di ko delloo feneen foo xam ne defoon ko daara ja moo ëppoon tuyaaba moo ëppoon kolere kon daal nañ delloowaat nañ nañ delloo xel yi ci daara nañ delloo xel yi ci alxuraanul karim nañ delloo xel yi ci li sëriñ bi bëggoon li sëriñ bi bëggoon nag génnul loolu génnul daara génnul alxuraan génnut génnut mbindum gaa yu baax yi génnut xadis kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ doon def di ko leer di ci leeral lenn ci waxtaan yi sëñ Ahmadou Touré doon waxtaan xam naa ne xamatuñu fi ñuy wax ndax wax na lu bari te lépp jaar yoon ak sëriñ bii fi jaar te wone fi liggéey ba am solo bii loolu moo tax yàlla su borom def képp ku fi teew loo tax nga teew fi muy jokk bokk ak dundal daara ak dundal alxuraanul karim su borom fay ñu ci lu kawe suñ jortu te delluwaat xel yi ci yàlla delluwaat ci jaamu yàlla delluwaat ci xam ne adduna jaarukaay la yàgg yàgg dañ fi bàyyi ko alal yi bari na am am yi bari na ba léegi ñu bare bari bàyyeetuñ xel li ñu fi indi mooy jaamu yàlla te sellal ko ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min risqin wa ma uridu an yut'imun wa ma min dabbatin fil ardi illa ala rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin binduma jinne ak nit nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm ma jaamu googu it ba namu ma ci yéen wërsëg namu ma ci yéen ngeen di ma jox ak lekk waaye nag wa ma asalukum alayhi min ajri in ajriya illa ala rabbil alamin laa juma leen dara léegi daal saxleen ci lu baax rek tépp koo xam ne nag saxoo ci lu baax moo tax sa borom yaag moom rek la yàlla ñu suñu borom defal foofu yi njéggal kon jaamu yàlla moo ñu fa indi ak sellal ko yàlla soxlawut ci ñun wërsëg lépp lu mbind moo gàddu sa wërsëg kon am am yéeg man-man yeeg yépp nañ ko delloo suñu boroom te xam ne aaxiru samaan ñi ngi ci ku moytuwul nag jamono dina la fëkk kon nañ delluwaat ci njàngaleem sëriñ bi delluwaat ci alxuraan delluwaat ci hadis loolu moo doon waxtaan yi nga xam ne moom lañ doon doole rek ci waxtaanu sëñ euh, euh, Ahmadou Touré wi ñoo ñaan yàlla suñu borom fay suñ béyti fay donga daara yi fay soxna yi doon sonn naka jekk ci donga yeeg ba bisub tey bii ñëpp suñu borom defal ñu ko tiyaaba joo xam ne du dagg bu ëllëg yow man xiyaamul akbar wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aouzu billahi min asheytaani rajim wa rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallim mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ñoo ngi nuyu mboolem jullit yi fi teew ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di leen siyaare bu baax te di leen balwaax di ñaan suñu borom mu bool ñu defal ak jéggal ginnaaw loolu ñu jottali fi ay kàddu yu néew rek te daal di jox sëriñ Bolle Mbaye mi ngi nii mu daal di jàng bu noppee jox sëriñ bi kàddu gi mu ñaanal mbooloo mi kon dañuy jiital ci kàddu yooyu sëriñ Baara Touré ci xalifa sëriñ Mor Fati Touré nga xam ne moom mooy borom kër gi yàlla dogal na ci suba teel na fii ñëw lool am na njaboot ak Madina Touré gépp ñu ràññee ci sëriñ Omar Touré di rakkam ak sëriñ As Touré xalifa sëriñ Cheikh Touré ab sëriñ Mor Touré moom sëriñ Cheikh Khoudia ak sëriñ Abdoul Khafour Touré ak sëriñ Abdoul Lahad Touré moom soxna si tedd si bi bàyyi ko soxna mu bi ak sëriñ Djili Touré moom sëriñ Cheikhouna Touré ñooñu ñëpp la sëriñ Baara àndal jóge Madina Touré moom xam na ne kon moom mooy borom bis bi te jàpp na ko fonk ko bu baax an nu jot ñi la koy defee ànd njaboot gépp ñëw yenn fi ba waxtu wi mu jiwi te ku ne xam ne jamono ji xam nañ ñoom lool kon ñu ngi koy ñaanal ci barke suñ Tuubaa suñ borom yàlla yàggal ko fi lool te may ko wér te àggaleel ko yéeneem yëpp ci barke suñ Tuubaa ginnaaw loolu Serigne Cheikh Touré moom Serigne Modou Touré bàyyi ko Touré gee ci Ndoulo moom it kasaalika moom it ànd naag Serigne Alhaji Touré ak Serigne Amsatou Touré ak Serigne Abdoul Karim Touré ak Serigne Alhaji Touré ibnu Serigne Modou Rokhaya ak Serigne Abdoulaye Touré ñu gën koo xam ci maam Laye Touré ñoom ñoom it wax dëgg yàlla comme ni ko mat ne yëpp defee rek am ñoom jënd kër lañ yàlla dogal na bis bi moom saa yu dikkee ñoom noonu lañ ko defee ñoom ñëpp ñu ànd teew bi kon sëriñ bi nee na xolam sedd leen ñaanal baax yàlla defal leen tawfeexi sëriñ Sill moom it di xëyfa sëriñ Mahmoud Sill moom it kasaalika bàyyi koo Touré géej tundulo moom it di kenn ci sëriñ bi koo xam ne bis bi moom it waxtu waxtu wu jot dañuy teew ànd ak moom it ay rakkam ak njaboot gépp moom it ànd na ak sëriñ Cheikh Sill ak sëriñ Ousmane Sill ak mboolem waa gi ñëpp rek teew kon moom it sëriñ bi nee na mi ngi koy sant bu baax te di ko gërëm te di ko ñaanal yàlla xilaafa gi mu wóotu sëriñ bi yàlla na ci liggéey liggéey bu kawe njortam ci barke Sëriñ Tuubaa ginnaaw loolu soxna Oumy Mbacke mii xam ne moo fi bàyyi ko léegi moom di doomi Cheikh Mouhamadoul Fadal di bàyyi faal bu wér moom it ànd na fekk soxna Safiya Jóob Sill du doomi sëriñ Mapaare Sill di waajur di sëriñ Murtala Mbàkke moom Cheikh Abdou Lahad ñoom it ñu bokk yenn fii ci suba ba léegi nekk kon sëriñ bi nee moom mi ngi leen di sant baax te di leen gërëm di leen ñaan yàlla àggale seen yéene soxna moom mi moom it ku na xam na ni jamono yi Kazu Rajab de moom xaw naa ñàkk bi lool ndax mbooloo bu leen fa toog di ko xaar waaye téewul nag fonk bu mu kër gi ndax xam ne ne kër gi moom màgg na rek mooy seen yaakaar day ëllëg ñoom it ñu jàpp ko nañ ko war a jàppee moo tax saa yu bis bi dikkee moom it mu bàyyi lam doon def lépp wàcc fa gan ña ànd ak njaboot gépp ñëw yendu fii ci kër sëriñ bi ba ngoon mu doog a yëwi mu ngi noonu doog a génn te ay gan a koy woo ci kër ga moo tax mu dem kon sëriñ bi ne ne moom mi ngi ko ñaal ngërëmal sëriñ Tuubaa li muy sàkku waxtu wu jot yàlla ca gën a am lu kawe njortam nee na mi ngi sant tamit sëriñ Bara Touré moom sëriñ moo Touré moom it koo Touré gay ca di sant sëriñ Koso Sill moom it moo fi koo moom léegi ñi ngi sant tamit sëriñ Galas Mbàkke ibnu sëriñ maam Ibrahima Mbàkke alquran moom it nga xam ne moo sëriñ bayti mi ñoo bokkoon ab liggéey fii ci gaar bu ndaw moom it mu liggéeyal suñ tuwaa liggéey bu kawee ndax bëri na ci yoonu ñoo xamante ne day seen njaboot fa lañ xamee lañ xam ñu ràññee ci njaboot njaboot ak suñ tubaab gépp rek mën naa ne kër goo fi dugg daara ja boo fi ñëw masaa ñëw waa Daaru Salaam ak Daaru fu ne am na ko fa bàyyi ko ku nekk daaray sëñ maam ji sëñ Fàllu xulle mii doon wax léegi foofa la génne moom kon ñu ngi koy siyaar baax muy sëñ Gas Mbàkke moom it moom it nekkal fi sëñ maam Ibrahima Mbàkke sëriñ Cheikh Abdou Mbàkke dimnu sëriñ Ibrahima Mbàkke Biyooli moom it di kenn ci kilifa yi waaye yàlla yàlla dogal nag moom it mu bokk ci ñi jaar fii ci daara ji waaye moom it ñu koy beral ak cant bu baax ndax day bëri ay kilifa yoo xamante ne xëy na jamono moo li tënk ba barab bañ xam la woon bu ñu fa bàyyeekoo maanaam jamono dañeen tënk ba nañ dañu fa bëgg a def ko mën def waaye moom da yàlla dimbali na ko ndax daara jii de waxtu wu jot ngi fi jaar di ko nemmiku fu mu toll te mi ngi nemmiku waa daara ji di xam liggéey bi fu mu toll di ci def ay soñ soññi kon ñu ngi koy beral ak cant baax Mbàkke yàlla na suñu borom defal tawfeex Serigne Touba ak Serigne Mamour Mbacke moom Serigne Moustapha moom Serigne Massamba moom it macha allah li ñu wax suñu seexatu rek dañ koy wax ndax mooy nit ku baax la koo xamante ne moom it ku bëgg liggéey bi sëñ bi la fu mu toll mi ngi ciy def ay soññe ak sëñ xaarim silla moom sëriñ fàllu silla diwaan moom it bokkoon ci doomi soxna yi jaar fii ci daara ji waaye ñoom it tasaale ka rek noonu sëñ Mamoor def ak sëñ Cheikh Abdou Mbacke moom it noonu rek ñoom ñëpp daal ak sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Salim moom sëriñ Masamba ak sëriñ Cheikh Mbacke moom soxna Roqee ñag moom it bàyyi ko ca Ndakaaru sëñ Cheikh Mbacke di sërëb sëriñ tay ba ñeeng moom it di wëlëre ci sëriñ bi moom it bàyyi ko ba soowu teew si fii nga xam ne moo nekkal waa daayira am lu xasida ca yu bis yi amee moom it dafa yor kuréel day santaan jàng foofu alxuraan ak limu xasida yu bëri daanaka bisab sëriñ Tuubaa boo dégg ñu ko def fii ci dëkk bi seenam liggéey ngi ci biir kon moom it sëriñ bi mi ngi koy sant baax te di ko beral ak cant boppam di ko ñaanal moom it liggéey bi muy liggéeyee sëriñ bi yàlla na ci am lu kawe njortam sëriñ bi ñu ngi sant tamit sëriñ Mamour Kane am na fekk sëriñ Alaaji Kan ak sëriñ Laamin lii moom it ñu ngi leen di beral ak cant bu baax di ay mbokk ci sëriñ bi ba pare te jàppale ko ci lépp ñu ngi sant tamit sëriñ Jiiri Mbàkke moom sëriñ Abdul Mbàkke moom sëriñ Baara Xuruja di sant tamit sëriñ Xaari Mbàkke moom sëriñ Sidiya di sant sëriñ Saam moom sëriñ Seex Penna moom Maamor Jaara ñoom ñëpp di ay kilifa yu baax yoo xamante ne ku ne xam ne jamono ji xam na ci moom waaye nag bisu bu seen yi yëpp yow kon seriñ bi nee na xolam seet na mbaax mi ngi ne yàlla dafa leen tawfeex sëriñ bi ñii siyaar tamit sëriñ Dame Kébé moom it bàyyi ko ba Kébé gee teew si fi moom it ak sëriñ Mor Xulle ak sëriñ Sam Fall ak sëriñ Cheikh Ñang ibnu sëriñ Abdourahim Ñang moom it teew na fi ak mbokk daal mu naan yëpp ak sëriñ Moudou Mamoun Dieng moom soxna Mbène waaw moom it macha wax dëgg yàlla teewaay bi lépp rafet na rek ak sëriñ Dame Taïba Sill ak sëriñ Thierno Dia ñoom ñëpp di ay bokk ci sëriñ bi ba pare jàpp ko lool jàppale ko lépp lu sëriñ bi nekk rek ma nga ca lool loolu tamit ñuy sant kilifa kër gi muy sëriñ Nourou Sarr di mag ci sëriñ bi di nit ku baax ku bëgg sëñ Touba ak xasida yi loolu ñëpp mën nañ ko koo seeral kon moom it ñu ngi koy seer baax te di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi damay ko ak mbir bu baax ngërëmale sëriñ Touba li muy sàkku ci xasida yi yàlla ci am lu kawe njortam di sant sëriñ Malick Sarr moom it di mag ci sëriñ bi bàyyi ko ba Touré gee ci ndulo ànd ak njaboot bi sëriñ bi nee mi ngi koy sant baax te li xam na lii lépp seen seenub liggéey la kon mi ngi leen ñaan yàlla yàggal leen tamay leen ak wér bu baax di sant nag sëriñ Abdou jaay mi nga xamante ne mën naa ne mooy kilifa ñun ñii ñëpp mooy suñu kilifa ndax mooy mag ci sët moo sëñ Mbay Sylla ñoom ñaar ñooy suñuy kilifa liggéey bi ñuy def tamit ñoom lañ koy defal waaye nag bi tax ñu leen di beral ak jant moo di ne ba ñuy teen noppal lool ndax lu luñ yëkkat yi maanaam bu ngeen cee woo di ngeen ci tàggu sax ñu ne leen yéen seenum xel day nañu yéen daal li ñuy def mooy di ngeen sant di ngeen ñaan rek loolu na ku am kilifa yu mel noonu doo may def lu may yéen sant ak gërëm ndax sëñ Adama Sarr mu baax day wax ne sëñ Mbàkke Madina daraa wax ne bokk nañu natt yi am kilifa melul na mu war mu doon si kilifa kon suñu kilifa yooyu ñu ngi ciy santal suñu borom baax di ñaan sëñ sëñ Abdou Diagne ak sëñ Mbaye Sylla ak soxna Mame Moussa Niang ak soxna Fat Dieng ñi nga xamante ne ñoom it ñooy jigéen ñi yàlla yàggal leen fi lool tamay leen ak wér te dolli seen i sàmm leen sàmm leen seen njaboot ginnaaw loolu tamit sëriñ bi nee na mi ngi sant waa daayira ahlul xasida ci njiital sëriñ Mourtala Mbacké moom sëriñ Falilou jëwriñ jël sëriñ Alsaan Kan sëñ Omar Ndiaye teewal ko fi ak sëñ Mourine mbay ak sëñ Mapaate Ndiaye ak sëñ Malick Diouf ñoom ñëpp ñu bokk ci ñi njiital daayira bi ànd ak mbooloo mi ñoom it at mu jot dañu fiy teew fii jàng nañu fi ci li mu xasida yu bëri bëri loo xamante ne xam naa duñ ko mën ndax waxtu yu ni mu ndax euh, liggéey boobu ñu doon def ci euh, alxuraan sax jàng nañ ci li mu alxuraan ba dugal ko ci kon ñoom it sëriñ bi ñu leen sant baax ndax at mu jot gis na ne bis bi bañ ko tàmbalee léegi saa yu dañuy bàyyi seen yitt yi yëpp teew si fii ànd moom liggéey bi di ko jàppale ci lépp ndax xam nañ sëriñ moom ak bëggam mooy alxuraan ak xasida yi te at mu jot noonu lañ fi teewee teew fi teewaay ba fekk kon sëñ Omar yow mi yor kàddu mbooloo mi sëriñ bi nee na boo demee nga santal ko sëñ Murtalaam sëriñ Falilu ak mbooleem waa ahlu xasida yi yëpp di ñaanal sëriñ Mourtala moom it suñu borom yàlla yàggal ko fi moom it ku bëgg sëriñ Tuubaa xasida yi di taalibe bu wér kon ñu ngi koy ñaanal te di ko sant baax di cant dox cant boobu sëriñ Omar Ndiaye mi nga xamante ne moo yor kàddu mboolem su demee jot ñu ko sëriñ bi ñuy santaat suñu bokki daara yi nga xamante ne yàlla dafa dogal ñu bokk ak ñoom liggéey bi ñenn ñi dëkk ci gox bi ak dox gox yi ko ñoom ñëpp nag bis bi bu dikkee dañ fiy bokk teew wàcc fi li ñu kaam yu bëri ni ko sëriñ bi def bëgg rek ñu def ko addee sëriñ Tuubaa ak Cheikh Mouhamadul Fadal ak mbooleem waaju jiitu ak mbooleem jullit ñëpp daara yooyu nag bokk na ci ñi fi teew sëriñ maam Diop daaray sëriñ maam Diop ak daaray sëriñ Sidi Mbacke ak daaray sëriñ Assane Ndiaye ak daaray sëriñ Issa Ndiaye ak daaray sëriñ Abdoulaye Sarr ak daaray sëriñ Alhaji Niang ak daaray sëriñ Sam Diop ak daaray sëriñ Siisa Fall ak daaray sëriñ Alhaji Bousso ak sëriñ Cheikh Oumy ak daaray sëriñ Xabbaan Mbay ak daaray sëriñ Omar Kan ak yi sëriñ Cheikh Alim ak daaray sëriñ Bolli Mbay jàng nañ ñoom ñëpp bi boolee seen limub kaamil ak lim bi nga xamante ne moom la donga yi e, barkeeloo ndax dañoo sasoo woon ne mboolem donga bu jaar ci daara ji sas nañ la nga jàng ab kaamil donte na benn kaamil sant nañ la nga jàng ko ba ñu ci bëree bëri wax di yàlla def nañ ko nañ ko bëggee ñoom yàlla dogal ne bi ñu ko jàngee ba mu àgg bi ñu ko dajalee ñeent fukki kaamil la mu yem ci kepp ñoom dong yi nekkoon ci daara ji loolu nag ku ne xam na ci bu xam nañ li muy taxaw kon yi nee na mi leen ñaan ci barkeb sëñ Touba barkeb moom mu gën a jub man xam ne moom wattali woon li mu yooyu sëñ leen ngeen mel ni Cheikh Fall la ci seen lépp waaw yéen donga yi yoon lañ beral ñaan boobu suñ Tuubaa defal leen ngeen mel ni seerafaal ci seen lépp rek ku ci ne la nga nekk di jémb daal yan na nga ca doon ab seerafaal ci barkeb suñ Tuubaa seerafaal kon téeméeri kaamil lañ ci jàng ak ñeent fukki kaamil ak ñaar ñeent fukki kaamil yi waa donga yi daaran ci daara yi ñoom ñoo barkeeloo ñeent fukki kaamil yi ñaar téeméeri kaamil yi ak ñaar daara yi fi teewoon ak mbokki taalibe yi ñoo ko def kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax ndax xam na ne lii maanaam kenn rek mënu ko bi mu wootee bis bi ngir liggéey suñ Tuubaa ku ne bàyyi sa yitte wet ga nga mën nga def ko kon mujj lu koy yël sant ak jërë ngërëm tey ñaan ci barke suñ Tuubaa mi mu doon liggéeyal Sëriñ Tuubaa def Sëriñ Tuubaa leen tawfeexi sëriñ bi ku ci nekk daa aaju joo am ngi ñaan suñu borom yàlla jiitu la ca fajal la ko defal la ci lu kaas njort waaye ginnaaw loolu nag xam naa dañuy jégglu tuuti wat jot li ay kàddu yoo xamante ne suñ bokk taalibe yi noonu ko yóbbandi ci sëriñ bi ñu baaxoo ko def an mu jot loola maanaam bu doon wax loolu luy luy booy ay nopp dañuy wax dañuy wax ne kon booy na ay nopp ngir ak cant ne moom waaye nag cant dafa doon loo xamante lu mënta ñàkk la te waxtu wu ne suñ ko mënoon suñu xëyee bu ñu yeewoo dañuy ñëw bu fi sëriñ bi ne ko sëriñ bi jërëjëf doog a demaat suñu yitte buñ ko mënewul noonu tamit waxtu jot ñi ngi koy sant ci jëpp anam buñ ko mënee waaye bu fi teewee tamit ñu dajawaale seen i kàddu ñoom ñëpp ku ci nekk rek amoon yéene ñëw bu sëñ bi wax ko sa mbégte ak sa tolluwaay ak sa cant ndax ni ko sëriñ bi na ko na ko ko kilifaam nga ñaanale woon ne ko maa ngi lay ñaanal waxuma la yow ci sa bopp waaye daara ji képp ku fi jaar dana wuutee ku fi fanaan donte ne génn guddi la dana wuutee ku fi fanaan loola moom ñoom ñëpp ku ci ne yëgal nga sa bopp te barab ba nga nekk moo xam ñuy jàngaleeg ñuy ñaw ak ñuy jaay ku ci barab ba nga ba nga nekk dañ joxe benn misaal muy Masamba Diop mii toog den nag man gën maa jege marché bi nga xamante ne noo fa bokkoon nekk gis nañ nam fa taxawee lépp luñ fay lijjanti ci ca ci gox boobee moom yi ña ko jiite ca la bokk bu xëyee mën naa ne jiite jàmbur lay di di ca dox suba ba ngoon loolu nag kon day mel ni maanaam euh, la barkeb sëñ boobee mu ñaanal moo feeñ noonu donga yi rek képp ku ne barab ba nga nekk maanaam ràññiku nga fa lool te loolu nag xam nañ ne du sa jëfi bopp kon fàggu tiif la kon sëriñ boobu nga xamante ne nag moo nu fàggu loolu moom na dong yëpp ànd nañ di di ko sant te di ko gërëm te di ko ñaanal baax suñ borom yàlla ñu ngi koy majal Serigne Fallou mi ngi borom bis bii yàlla yàggal fa Serigne Béyti mu dund téeméeri at yu tegal te ànd ak wér dara bu ko jot ñu ngi ko ko ñaanal baax ci bàkkeb alxuraanul karim di ko ñaanal yàlla sàmm ko sàmmal ko njabootam gépp lépp loo xamante ne yéenim la ñu xam ne ñu ak bëgg moom ngeen la muy sëñ Tuubaa ak alxuraan loola muy bëggub sëñ Béyti amul ñaar ak ñett ndax day wax ne musta woote fii ak wala ngénte wala dara waaye bisab alxuraan lay woote loolu ñëpp xam nañ ko kenn mos a dégg sëñ béyti day yëgle ay ceet ak ngénte waaye bisam ak sëñ Tuubaa la lay wote muy bis boo xamante ne koy sant sëñ Tuubaa di ci jàng alxuraan xasida te ne ko sëñ bi waxee rek maanaam ñëpp rafet nañ jot ci ne bis moom sëñ Tuubaa nangu na ko ndax bu fekkoon te ne eh, am mu jot gis nañu mi def ak yokkute ci am waaye ren jii ñëpp xam nañ ne ni sëñ si waxtu wax wax léegi rek sëñ bi sëñ bi yabalewu daa dikkal boppam kon nag ñu ngi santaat bu baax sëriñ bi te di ko ñaan yàlla àggaleel ko yéeneem yëpp ginnaaw loolu dong yi nga xamante ne dañ fee jaaroon suñ ginnaaw eh, ñu koy wax eh, ñoom suñu saari bu baax yàlla dogal ñun nga xamante biñ fi jaaree ba jàll ñoom ñoo fi ñëwaat suñ ginnaaw moom ak kuréel kuréel bi fi bokkoon ñoom nekk yàlla dogal biñ tikkee gis liggéey bi mag ñi sos waaw yàlla dogal nag ñoom bi ñu daal di sos liggéey bu mel noonu nga xamante ne kon yëpp doonoon seen jur yi mooy sëñ Sidi Mbacke moom limoon nañ ci kilifa yi man nag ñoom wax di yàlla ak sëñ ñu def ay taxawaay yu di roy ci mag ñi moom it sos ab daayira dajale seen addiya lépp loo xamante ne daara ji yittewoo na ko tamit muy guddi ak bëccëg ña ngi cee def seen kam kattan kon yéen ñi leen di beral ak cant bu baax a baax a baax a baax te leen xamal ne yoon wi ngeen jaar rek mooy yoon wi kon yàlla yàlla defal ay tawfeex ngeen gën gën gën cee góorgóorlu baax ginnaaw loolu nag ñuy fàttali suñ bopp di fàttali mboolem suñ bokk donga yi waxoon nañ ko fee ci biir sax mooy sëriñ bi amul genn ba tax na dundam gépp dafa wax ne fas na ko yéene jeexal ci alxuraan moom fasul yéene am meneen métti mu dul jàngale alxuraan di ko jàng léegi nag ba tax na ñaari daara yi mu taxawal daara jee mu tudd sëñ Mataar Jobbe ba mu ko liggéeyee ba mu eggee daf ne jëbbal naa leen ko bis ne ki tay man noppi naa ca tabaxal leen daara laa man jëbbal naa leen ko léegi nag saytu ba ak lépp ñu noonu seen loxo diirab keroog ak léegi nag maanaam taxaw na ci sax ndax da ko waxee noonu waaye loxoom génn ca ndax njël la nga xamante ne moo sax fa daara ja fii lañ xëy bët bu set di ko kon léegi ñun dañoo bëgg a defal ay ndimbal ak tawfeex rek ak di ñuy soññ bu baax waaye loxo mosut génn ba tax na nag waxoon nañ ñun ñun dongay daara yooyee nga xam ne ñoo jaaroon ci daara ji ba bàyyi ko fi te ku ci nekk nekk ci beneen barab di fi yëmbutoo suñ borom yàlla di la bëggoon nag daara ji ñu sëriñ bi dénk ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax léegi lañ ko dajewoon nañ fii tëbaski ga daaw noonu ba ne dañoo bëggoon saa yu weer wi deetee xëy bu ñu ci benn ñaari téeméer suñu ci kenn dara nag waaye dañuy waxoon ku ci ne nga xool la nga xamante ne mën nga ko jaayante ngir sëñ Tuubaa weer bu dee wu nekk nga jël ca lu na nga ko mënee rek yónnee ko sëñ Masamba Diop joxoon nañ am numéro orange am bu ko defee bëgg képp koo xamante ne weer dee na rek ñu benn ñaar téeméer nga yónnee ko sëñ ma bu ko defee ndax wax yàlla moom it danañ ko beral ak cant bu wér ndax taxawaay bu mu taxaw ci liggéey bi ñun ñii la waroon te mënuñu ko lim kiy def moom ak sëñ Ibrahima Xule ak sëriñ ak sëñ Jili Saar maanaam ñun ñii kenn mënu ko ndax bu guddi ak bëccëg dañuy liggéey ba wàcc ñëw fii fi sëriñ bi di xam yitte yi yenn fi sëriñ bi ñoom ñu def ko am xëy suba kon nag léegi wax di yàlla ñu ngi leen beral ak cant bu baax ndax loolu ñun ñëpp la waral te ñoom ñoo ñu ca ñu leen beral ak cant bu baax yéen di leen ñaan suñu borom defal kon ñu ngi sase santaan santaane waat ci liggéey boobu bëgg bu weeru deetee képp koo xamante ne rek maanaam euh, bokkoon nga ci doo ngay jaay ci daara ji xeebuñu ñaar téeméer la ñaar téeméer ñu ko ngir lu jëm ci daara jee ndax doo takku nañ te dund bépp sëriñ bi moom la war te mi waraloon na ko di ko jëf waaye ñuy bëgg nag ñun di ko ci jàppale ci liggéey boobee kon saa yi weer wi deetee léegi bëgg nañ euh, ku kenn ku nekk rek yónnee sa addi nu mën a toll xeebuñu ko ñu boole ko di ko defee di ko saytoo euh, jàppale sëriñ bi la muy saytoo daara jee ginnaaw loolu tamit ubbi nañ ci benn groupe boo xamante ne ci yi xew xarala yi xew léegi ci lañ ko def li ñuy tuddee whatsapp yàlla ko ne dugluñ ko lu may nag bëggaat boolewaat njaboot ak daara jëpp rek ñuy fàttalikoonte ak di xam tolluwaayu liggéey bi loolu lañ jublu woon ba tax na sax euh, biñ ko defee tamit sos nañ ca euh, ab kaamil boo xam ne dañuy def saa yu ñu xëyee danañ jàng kaamil moom addiyaale ko sëñ Tuubaa loolu mi ngi wéy ba léegi ajuma ju lañ ko tàmbali woon ndax euh, doon dàkku bëggu sëriñ bi ci weeru tedd bi nga xam ne wa am wàccuwaay la ci lislaam ba tax ñu sosoon ko ci loolu tamit ñi ngi soññu képp koo xam ne yoroon nga ci ab jukki nañ ko waxe woon suñu xëyee suba bal ngaa tëdd ci ab dal bala ñuy julli gee ndax sëñ Saliou ñang mi ñu dénk muy jàng xarmu bi dañ ko wax ne saa yu jullee gee ba sëlmal ba def ay ay lawraatam bu noppi na jàng xarmu bi addi yàlla ko sëñ Tuubaa kon nag bëgg nañu saa yu nit xëyatee balaa julli gee na jàng jukki boobee wax nañ ne tamit képp ku ci am ngànt waxoon na joxoon nañu ay ay ay tur yoo xamante ne wax nañu ko am ngànt na nga daal di woo sëñ Ibrahima sañ wala sëñ Masamba Diop wala Serigne Niang ñett ñooñu moom faa nga jot ci kenn ne ko man maa yor numéro 5 wala maa yor numéro 6 te damaa am ngant wa damaa génn parti sama jukki ndax lépp day am su boobaa ne moom pasaasa dana mën a woo kenn ci ñi yor daara yi maanaam ñoom ne ko jàngama numéro 5 ñu daal koy jàng pasaasa waaye daal xam ne ku benn jukki yaa manqué kaamilu Sëñ Tuubaa yaakaar naa nag boobu liggéey ku ca xas ba engagé ku dem ba am benn ngant na nga delloo jukki bi ndax kaamil bi dañ koo fas yéene wéyal suñ yëpp dund di ko jàng Sëñ Tuubaa di ko defal addiya kon nag léegi loolu ñi ngi koy soññ baax a baax a kon foofu la ñuy daal tënk rek di santaan nag sëriñ Ahmadou Touré baax noonu ko sëriñ Cheikh Touré waxe woon rek moom day kenn ci euh, euh, kër gi di kenn ci waa daara ji am mu gëpp mu ñëw fi teew fi moom sëriñ Mor Diouf moom it ñu bokk ci njabootu sëriñ bi ñi leen sant baax di leen yàlla yéen liggéey bi ngeen liggéey suñ Tuubaa yàlla nañ ci day ak tawfeex sëriñ bi suñ borom yàlla àggal seen yéene yëpp rek kon euh, numéro yi joxe mooy 77 640 640 84 66 77 640 84 66 mooy numéro bi Serigne Niang numéro bi Serigne Massamba Diop mooy 77 631 42 42 77 631 42 42 ñaari numéro yi daal lañ bëgg képp koo xamante ne am nga lu jëm si daara yi soo ko ci defee moom bu soobee suñu borom boo ko ci xëyee def dana yendu sëriñ bi boo ko ci gonte def dana fanaan si waaw ginnaaw loolu tamit eh, ñi ngi beral waa koñ bi ñëpp ñëpp ñëpp buñ ci tuddee kenn rek muy soxna waalo gumba la dana mën a yóbbaale mboolem soxna yëpp rek ndax gis nañ bis bi ba mu jubsee ba tey jii ku ci ne ngaa dagg sa yitte yëpp guddi ak bëccëg yaa ngi wax lu jëm ci bis bi ba bis bi lépp jàpp kon sëñ bi nee mi leen di beral ak cant dañuy bañ a lim ndax ñu limee duñ mën a matal waaye bu ñu tuddee soxna waalo gumba rek moom moom mu yóbbaale soxna yi kër géeg ak mboolem waa koñ bi ñëpp rek ginnaaw loolu tamit ñi ngi santaat baax a baax sëriñ Cheikh Touré mii nga xamante ne moom it moo fi indi waxukaay yi te bis bi yaakaar naa ne euh, bañ ko dalee ba ba tey jii am nu jot waxukaay yi moo koy indi sëriñ bi te mu si laa ñaari dërëm ndax moom it dafa bokk ci donge yi nga xamante ne jaar nañ ci daara ji ba tey jii moom it lii sëriñ bi def def na ko taxawal na ñaari daara la ci yéeme mooy euh, daara ya ay tuutànkañ nga te ñoo xam ne waxuma la alxuraan waaye xasida am mu jot day def bisu xasida bu mag fii bu ñëwee su ginnaaw suba gàmm gi yaakaar naa na xale yi tuuti yoo xam ne amaguñ fukki at maanaam ku leen tarloo maanaam jaalibatul maraaqib ak yi matlul bu fë seen ak tey si roancir te ko fa rek da nga fa gis loolu kon nee na mi ngi lay ñaanal baax suñu borom defal la tawfeex sëriñ Touba boobu nga koy liggéeyee ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm jili sill moom it di doomi sëriñ Mahmoud sill bokk nañ ci njaaram ci daara ji moom it yor liggéey bu mel noonu fan yi yaram daa ko sudante ñu ngi seet ko ne ci bëy wala gën a jege rek nga jàng ko ñaanal ko borom yàlla saafara ko sëriñ Abdoulahar Sarr moom it mu jigéen dafa xaw a jagadi jamono yi ba nekk ci barabu fajukaay ba ñu ngi sàkku moom it ku ne bayit bu gën a jege nga ñaanal ko suñu borom yàlla saafara ko ci barkeb sëñ Tuubaa waaw moom it bokk na ci njabootam daara ji moom it dafa am tout tànkam bu xaw a jagadi moom it kasaalika ñun ñaanal ko moom it ku ne bayit bu la gën ginnaaw loolu ñu ngi ni ñu ko waxee ñu ngi santaan ñëpp tey gërëm ñëpp di beral ak cant sëriñ Saaxo mi nga xamante ne moo nekkal fa soowu ba mu taxaw ba taxawaay bu rafet moom sëriñ xaadim sëriñ Modou Sall ñoom ñoo taxawal sëriñ ba foofee ca dëkk boobee di sant sëriñ Fallou Sall mu nekk bu Guinée moom it wax di yàlla bu mu toll mi ngi def ay yitte ci liggéey bi di ko nemmiku di dajale ay at di ko fi yónni am mu jot ak mbooleem ñu nekk Côte ak sëriñ Youssou Diagne moom it foofee wax di yàlla mbokk tali bu ñu limee day gën a gudd waaye ñi ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp rek xam bi daal di jot li kaddu yi njaari lillahu alquranu jibrilu muhammadun muhammadun sallallahu taala alayhi wa sallam للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد قرى وإني أحمد يحيلني على الثواب سمد بجاه خير الخلق نعم الجيد أرسل خير العالمين الآحد نعم الإله الأكرم الموحد لله عمد مع شكر يقدر دوام ملك نافيا فرد له كتاب حامدا وينجد على التي به الامتنان أقصد حبلي كتابك والشق ما يخلد بسري لي يا أكرما أوحد إن كتابا جاء به محمد صلى عليه بالسلام سمد لنا به خاد حدا ورصدوا به على رب الورى نعتمد قاد لنا القرآن ما لا نجد في غيره نعم الكتاب الأفياد رد مكاره ولي لا ترد باق به لي المنى يخلد آياته إلى سوانا تطرد بلا انتهاء قبل انتهاء من يرشد إلى سوانا ما يسوء يقصد في أبد به الجنان نارد نفى لخيرنا به محمد مساءنا وقد نفاه سماد جميل تسليم يدوم المدد به على ندب أمين يحمد بركة عظيمة لا تنفد على أمين في الكرام يفحد ربنا سلاما بسنة يجدد لغائب هو المطاع الأمجد يا الله يا رب الولا يا سمد يا من به تدت كرام حبد لمن به منك تأمدد خلد صلاة بسلام يحمد من مثل أحمد ابتغى لا يجد فالمثل لم يرد وليس يرد حوى نبينا الرسول أحمد تقديم من هو القديم الأحد من يمنه أتى الكرام المدد هو هو الإمام والشفيع الأجواد من ربنا به يدوم الرقد لنا وينفو لسوانا نكد درجة المختار ليست تجحد ونوره الساتع ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفياد لنا وينفو لسوانا الكمد حبيبنا المختار بان سودد وما حوى في الغر ليس يوجد محمد هو السجاء سند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد والنبي والرسول المنجد دين سوى إسلامه لا يحمد عند الإله وبه نجدد دين سوى إسلامه لا يحمد عند الإله وبه نجدد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين nangu leen ñaan sëriñ baa ngi ñaan amin xanaa xool bi nga xam ak sëñ Tuubaa lañu aaj yëpp faju ñëpp wér gudd fan wér xéwal képp am na ay mbokk yu milliardaire sëñ Tuubaa yi barke sëñ Tuubaa